الحمد لله الذي خلق العوالم وجعل نورا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مطيئا لكل مكان من الأرض والصلاة والسلام على من أنزل عليه كتابه مستقيما ورضي الله عن صاحب الأنهار الرباني والفتوحات الإلهي سيدي ومولاي أحمد بن محمد الثاني التجاني ورضي الله عن صاحب الفتوحات الإلهية والأنوار المحمدي المربي الأكبر سيدي ومولاي الشيخ سيدي الحاج عبد السلام جزا الله عنه وعن مقدمه وأهل طريقه wa amzaalihi ridan abadiya assalaamu aleykum wa wa barakaatuhu mbokki kër Farba yëpp ñu ziyaara di leen andil seen suñu nuyoo wéyjur seen soppe di seen xarit di seen dëkkandoor di seen mbokk mi nga xam ne moo di al uquwa fi islam di mbokk mi nga xam ne yéen a gën a xam lii mécceem ci suuf moo di fexe ba ñi yàlla bind ci kaw suuf ñu xam kan mooy seen borom fexe ba ñu xamit fan la jaar pour xam kooku moo di kan muy seen soppe a Seyid Mouhamed Al Mansour ñu ngi leen di andil nuyoo di leen andil ziyaara njëkk loolu ñu jiital ci nuyoo bi kilifaay jotaay bi muy sëriñ Modou Diouf di sët ci suñu maam sëriñu Modou Diouf falilaay alhamdu bi ñu ko fi fekkee euh, sant nañ yàlla bu baax bi ñu dugg see ci kër gi fekk ko fi xel gën naa dali nag waaw xel gën naa dalit suñu baay jërëjëf ñu ngi lay nuyu te di la ziyaara di la andil sa nuyoo xarit sa nuyoo soppe sa wëllëre boo xam ne fi ngeen jaar fàtteku ci dara ndax yëpp nañu bi ñuy ñëw te wax nañu loolu yëpp ñu ngi laa yëgal ne ku la sopp moo ñu yónni ku la bëgg moo ñu yónni ku la yéene ndama la ñu yónni ku xamit démb te di ko bàyyi xel ñu yónni muy sa xarit Cheikh Mouhamadul Mansour waaye gën nañoo dooli yaakaar ci liñ ci fekk dëgg yàlla ndax jóge ci kër sëñ Abdou Salaam ñoo fekk tàntaak suñu maam maam Modou Diouf nga fekkee ko dëgg dëgg dëgg dëgg ñaari kër lañu da naan jóge ci kër sëñ Abdou Salaam duggaat ci kër sëñ Abdou Salaam la ndax ñaar lañ yoo xam ne dineen sañoo àndaw sañoo àndaw a junj seen ànd sañoo àndaw moo junj ànd ak sëriñ Modou Diouf ak sëriñ Abdou Salaam radiyallahu anhu sëriñ Abdou Salaam daf di ko tumaranke ci nim ànd ak sañoo àndaw nekk jëmm ji di taalibe boo xam ne lii jot a am ci diggante taalibe sëriñ ci li ñu miin jotut a jaar seen diggante muy sëñ Omar Ndaw taalibeem bu dul sëriñ Moussa Diouf toog nga ci kër sëñ Omar Ndaw di ko xëyali ca tool ya di ko gorali tool ya di matt yi di andi di togg di yak taalibe bu dul taalibe bu sëriñ Moussa Diouf defal na sëñ Omar Ndaw loola ba mu des seen waaji seen xarit bi ki ànd ak yéen ci yàlla tanaxu leen ki nga xam ne fu mu ku nit ñi war a jëriñoo mu wan leen ne ne ci moom ki nga xam ne njabootu ku mu tiim fekk nga sàgganee sa mbiram way jur nga am róoréeree ci moom mu yeela ba nga am farlu ci moom ki nga xam ne day fekk xol buy nelaw mu fëgg ko ba mu yeewu mu won ko fi muy jaar pour joti boromam kookale moom laa ne àndam ak sëriñ Modou Diouf sañoon doo ko ji muy Maodo Aïcha Abdou Salam di jëmu ji nga xam ne seen baay xamoon na ko jaar naa moom fu ne suñu baay Ahmad Diouf nettali na ne bi mu fi jógee fii dem xajik baytallaahil haraam toog na ci dina sepp ci kaaba gi cëpp ci makkatul mukaram fu mu gersu di jama mawlaaye Cheikh Abdou fu mu gersu di jama mawlaaye Cheikh Abdou gersu di jama mawlaaye Cheikh Abdou ba kerek bi tànkam di dégaar ci biir ne mawlaaye Cheikh Abdou Salaam moo tax bi mu wàccee ay defar xaal ñëwal ko mu ne du wàcc kër Farba day jaari guddéem ki ki ko doon gunge di ko xamal ni ñuy aje kooku lay sekk ziyaare xànd googale moom la sëriñ bii doon leen junj ku bëgg a yegg ci loolu xànd googale moom la sëriñ bi doon junj wax na wax na ba leeral ne lu xam la te dëgg la lu xam la ak a xam li ñuy tuddee xaqiqi cheikhul xaqiqi lu xam la lim junj yëpp ne mawlaaye cheikh Ahmad Tijaani mooy usul wasail lu xam la lim junj yi ne géej googale kenn du ca naan ci boo ko yëgee ak boo ko yëgul lu dul ci danga koy naanee ci baaraamu Cheikh Ahmed Tidiane yi loo xam la liñ ko junjune moolaay Cheikh Ahmed Tidiane yi moo di ruuxul wujudi lu xam la lu wér la waaye ku xam abada wilayatawo آدم بين الماء والتين شيخ تيجان خذ كل وجود الذي أبدى ولاية ربي وآدم بين الماء والتين الحمد الذي أبدى ولايته ربي وآدم بين الماء والتين مولاي Cheikh Tidiane mooy qutbul wujuud al qutb mooy firi ki ne ci kanam li yàlla bind lu dul yonent Cheikh Tidiane yi moo di seen njiit li Sëriñ lu fi xam seexu tijaani mooy xaasul bashariya weñ gi ne ci nit ba nit di mën a tànk leer ci ngëm wala nit di mën a tànk lenn ci yërmandeg sa borom seexu tijaani mooy loola ci yow kon wax ji wax ne moom Cheikh abda wilayatu kañ la mu ne rabbi wa adam Cheikh xutbul wujud mooy njiitu mbindéef yi Mawlaaye Cheikh abda feeñal na nga jëli rabbi mu xasaf yaa umu na yaa yaa umu tëkkallim gi mooy abda feeñal na rabbi sama borom moo feeñal lan wilayatuhu wilayat Cheikh ñu ne ko sëriñ Babacar li ngay wax ne sa borom a ko feeñal ci mawlaaye cheikh loolu kañ la mu ne booba wa aadamu baynal maa i wa tii booba moo aadama bi nga xam ne mooy sangi doomi aadama yi di suñu bàyyi ñun ñëpp booba moom aadam dañagul ci diggante ban ak ndox ma ñew mu ne boba adama dañul ci digënté maaw ak ndox mawlaaye ci ñoo war ndaw ne ba tay dafa am lo bëgg wax sëriñ Moodu dafa jundju ñaari kunt moy kunt nabiyyan wa adamu bainal ma'i i wa tiini ak waliyan wa adamu bainal ma'i wa tiini la sëriñ Moodu jundju ñaari kunt yoyele ñom ñaar bañ koy ne boba dara yalla xamul ko ñoom ñaar rekk a fi nexoon di kuntu ndax yàlla suñu borom dafa nekk di kenn wahidan bi ma waxee mu ne ah fa ahbabtu an awjadtu xalqan tu'rafani bi kuntu wahidan moom suñu borom rek a fi neexoon soppa ñu xam moo di kan mu bind jëmm pour ñu dem xamee jëmm jooje ci moom jëmm jooje bi mu ko bindee moo di mawlaaya rasulillahi Seexu Tijaani mu ne du ñaari xalimba fa neexoon benn fa neexoon moom bi ñu bindee yonentu ci xalimba googu lañ ko bindee mënuñoo loola mooy di lan dem nañ ba jamono di ko tekki bu njëkk benn loxo manu toon téye ñaari xaliba di bind jëm nañ ba jamono benn loxo di téye ñaari xaliba di bind lu ko andi da ngay takkalante ñaari xaliba di bind baat yi ngay bind ba muy ne nekk ñaari bind benn bind bu ne di bind moromam mawlaaye rasulillahi ak mawlaaye si Cheikh Ahmad Tidiane yi noonu la ñu xamee fakkan ak borom kenn ku ci ne nag suñu borom ne toogal fi nga toog xaar ma par seekal par seekal laa leen di andi yonentu sallallahu alayhi wa sallam yàlla yónni trois cent treize yonent ne leen dem leen ngeen defi inter ngeen nekk fa lenn mooy seen mission mooy fexe leen xamal jaam yi ngeen di wuyti ne leen am na ku ma war a yónni kookale mooy seen sang kookale mooy seen patron kooku mooy ki nga xam ne lu ngeen mën a dox ak lu ngeen mën a xam ci moom ngeen koy tànqee bu cheyri ne ko Stop. wa kulluhum min rasulillahi muxtarifun xarfan min albahri aw rashfan min addiyami mbooleem lambiya u yi mbooleem mursalina yi li ñu xam doon ko waxee ci seen borom yi li ñu xam doon ko jëriñee jaam yi fi ñu doon jëlee jaam yi di yóbbu ci seen boroom lépp ñu ngi ko tànqee ci géeju mawlaaya rasulillahi loolu ñu tànqee ci géeju rasulillahi mu ngi mel ni puso boo fekk ci ndo ni ko sëñ Moodu junjee ne mu ngi mel ni géej gu cëp nga fekk jël benn puso ne ko saraax ci biir géej gi génnee ko la topp loola mooy li ñu tànqee ci yonentu la fa des moo di yonentu sallallahu alayhi wa ma ne janaab ak muus du maa ngi ñëw dafa am ñaar ñu ma bëgg a tollale maa ngi ñëw bi nga xamee ne loolu am na mawlaay rasulullahi def loolu Seexu Tijaan yi yàlla bindoon ko ca boobale ne ko xaaral ñu dem ba jëmmi jamono yonent yi ñëw fii di wane li nga xam ne moom la ñuy wax mbirum yonentu sallallahu alayhi wa sallam kenn ku ci ne bi nga ñëwee bégle nga pour xam le ne kii di ñëw mooy ki gën ci ñun ñoom ñëpp ñu ñëw dem ba ci Iisaa mi mujj ñëw maa ngi leen moo andi turam di Ahmad moo tax ñuy wax ne yonentu ca tawreet ahmad la tudd suñu demee ca injil mahmud la su ñu ñewee ci ah fii ñu nekk ñun ñu tuddee ko muhammadu Mawlaay Cheikh Tidiane yi nag yàlla jël ko ne ko xaaral yonentu jamono lëndëm na dem ba nga xam ne diina kenn dundatu ko leer fay na nit ñaa ngi tàmbalee gëlëm di dund ay aada yàlla wax yonentu bi ne ko kaay jaam yële a gis la leen gis ñu nekk yéene naa la yow yonentu lu ëpp la ñu nekk yéene naa leen lu ëpp la ñu nekk yow rek yaay ki leen ci mën a xettali ndax yow la leer matee man leen roccee ci lëndëm gi ñu ne andi leen ci leer gi ñu ne leer gi ma bëgg yonent ñëw def loola matal mission am dem bi mu fi jógee ñu dox jamono biñ doxee jamono ba jamono ñëw lëndëm ñëwaat ay waliyu rek di ne ay waliyu rek di fi ne waliyu bu mos a mos leen ci maqaamam xutbu junji nga mawlaa yi Cheikh Ahmad Tidiane ci kaddu ma Seyd Mouhamadul Makhtar Kunti junji na ko ki nga xam ne moo di xaatim junj na ko soo demee ci li ñuy tuddee futuhaatul makkiya ki nga xam ne moo di ibnu arabi alxaatimi junj na ko mboolem lawliyaa yi fi jaar te doon nekk xutbu kenn ku ci ne junj nga Seydi Ahmad Tidiane yi comme ni nga xamee ne yonent yi fi doon jaar noonu lañ doon junjee mawlaaya rasulillahi Cheikh Tidiane yi ñëw nag mawdo ne ko amara nabiyu imamana bi tanassuli li ifadati alxalqi bil wirdil jëli amara digle na annabiyu sallallahu alayhi wa sallam an imamina ci suñu njiit lii di mawlaaye Cheikh Ahmad Tidiane yi tanassuli foofu tanazulu thani la tanazul bu njëkk bi mu nga ci alastu bi rabbikum ستعين ولدا خيرنا بن هدبلا ثلاثة مدار من أداه أدوه به كمي نير نور أجم أجيرا بي خذول أيسرا من كان من القرآن ما كتاه يرا قرآن والله ليس كوك مريون انت مولاي شيخ تجان نك foofu la jaar kooku la sëñ Modou di wax ne kooku la leen sëñ Modou di wax ne kooku mooy ki ñu war a xam mooy ki nga xam ne bi fi dara ne xagut la tëbbam tàmbale mooy ki nga xam ne bi fi dara nexee tëbb ma ko fi def mooy ki nga xam ne feeg nit ñaa ngi nekk li jàpp di tudd ne daraa ngi fi na nga yëg ne tëbb ma fa ne alquran junju ko nag na suñu wandaw dafa wax ne min tala tala talatutan bi xibari alqurani alastu ashiyai ladal athani min faydihi sariata tamami min faydihi tariqata alaq at at at naa ni nee na alquran may wax ne na ngeen texe muy nekk seen bànneexu nopp alquran ji moom ci la sariya génnee alquran ji moom ci la tariqa génnee alquran ne qad jaakum min allahi nuurun wa kitaabun mubiinun an nuur moo di tariqa kitaabun moo di sariya alquran ñëwaat firi ko ne yahdi bihi man ittabi'a ridwanahu subul salami sañu war ndaw muné wa addi bil abtala bil qur'ani qira'atan tanal sana ritwani. is nga yahdi bihi man Al Quran yahdi dina gindi bi yahdi dina gindi ko bihi ci Quran. man ka nga xamné ittaba' togona bëgg am lan ritwana batu ittaba' ci if it iftaala la tug jógee iftaala mooy firi yow bi nga bëggee am ngir man deg sa boroom sonn nga pour jot ci loola kon yahdi bihi man ittabaa ridwaanahu subula salaami ba tey xaqiqa ñëwaat ne yuxrijuhu min azulumaati ila nuur gis nga yàlla moo dàq moo dàq la ñu tuddee ta tataawu gis nga fi mu waxee ne qad jaakum min allaahi nuurun mu jël yuxrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur mu dellu ci nur fi ne yahdi bihi man itabaa ridwanahu mu ne wa kitabun mubin mu dellu ci yahdi bihi man tabar dellu ci kitabun mubin loola moy li deggal ne sañu wanda wax ji mu wax ne tariqa ak haqiqa lepp ci alquran la nek sëñ Modou dafa bax la bir lool jamono bi fi mak ñi di ne muy mawlaye Cheikh Abdou salam ak mawlaye Cheikh War Ndaw biñ fii ne dafa am lu lu yitte woon mooy fexe jaam yi nekk julit biñ jógee fiñ toll nii kër Farba amatul yéeféer ñëpp ci ña nodd dëkk bu ne mel ñaari juma ñaari jàkk am diina rek ko war diina jooju agsi na ñëpp a koy jëfandikoo kenn ku ne am na loo jonle sa bopp dafa am lu des li des loola moom la leen sëñ Omar sëñ Modou mii di leen woone nañ dem jëli ko lu mën a ne la lu xam la te ba mu waaso amul diw lii la diw lii la déedéet ñi xam yàlla yéeféer yaa ngi ci olof yaa ngi ci séeréer yaa ngi ci pël yaa ci ñëpp ngi ci te kenn ku ci ne amoon nga aada goo xam ne dafa wuute woon ak diina sëñ Modou mu ne nañ yee suñ bopp ni ñu sàkku dund ñore nañ nañ sàkkoo noonu xam boroom borom te kookale kenn mënu koo xam ci xamin gu gën a gu gën a gaaw jaaree ko ci tariqaab Cheikhu Tijaani bi nga xam ne rabba bila xalwatin ashaabuhu alanan hatta staqaamu fa yàllallahi man xaahu rabba yarena moom cheikh ba nga mën a gis sa boroom rabbaa yare na moom cheikh ba nga mën a xam kuy yonent rabbaa yare na moom cheikh ba nga mën a gis dëgg xammee ne lii la rabbaa yare na moom cheikh ba jaam mën a teqale dëgg ak fen te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa bokkoon ci ñaanam allahumma arina al haqa haqa warzuqna ittibaa wa arina al batila batila warzuqna ittibaaba cheikh nee na li yonent bee ñaan kaay leen ma mooñaale leen benn mbir jox leen ko ngeen di ko jëfandikoo ngeen di am ñaan ñaanu yonent góogale mooy lan rabba yare na ci nga mën a xàmmee dëgg ak fen al ab bila xalwatin nag bila xalwa bila xalwatin ñu bëri dañoo foog ne tariqab cheikh dafa amul xalwa ñu bëri dañoo foog ne bila xalwa googu mu wax day tekki ne tariqa bi amul xalwa akati bëri moolaay cheikh bi mu amee tariqaam dugg na xalwa ay yoon xalwa yee gàtt nag ndax li nit ñi doon tayu ci ay fan moom la doon def ci ay minute li nit ñi di tëju di ko liggéey ci ay at ak weer moom daf koy liggéey ci ay minute te benn làmmiñ bi nga yor nag la koy defee bu ma ne ma daf ko tayu de daf làmmiñ bi nga xam di ko zikaree moom la xamoon doon ko defee alquran ji ngay jàng ci fukki minute di ko jàng li nga li ngay jàng ci fukki minute mu di ko jàng ci benn minute làmmiñ bi nga yor di ko jàng moom la ko jàngee li lay wane loola man la caa yeggale mooy ñu dem defi li sëriñ bi wax bés buñ ci yeggee danañ xam ne lu xam lu leer la loolu nag moo mbir moo xam ne yàlla fa ci fiir fiiram gim ci fiir moo tax du ko yebele du ko joxe ci lu dul jaam bi tàggatu nangoo toppe awalan nangoo toppe awalan xam nga lim lettali fii ne suñu baay jiw moom la set ak moom ba nit ñi di ko wax loolu ni mu ko nettalee te muy dëgg yàllaay sedd mbaax ku ko neex la koy jox waaye mën naa feeñal mbaax ci diggante bii te am nañ ci yaakaar ndax ki ànd ñaara ànd ki ñu ànd ak def ko muy kilifa nangu na ne ànd na ak moom ki and ak mom won nako ne ki and na ak mom kon li ci dess ciobar bi yalla la fu manta ne lu fu manta yegg xamul waxon na len ne seigne Abdou salam ak seigne Modou Diouf seigne Wando junj sen bir seigne Wando dafa julli suba tel te ben ngaram doxantu ba ci buntu jàkka ji mu taxaw yegati loxo bi tekko ni ci buntu bi seigne Abdou salam ngi tok ci ren mbaar mu woo ñew mu ne mu taala loxo bi ni bi radiyallahu anhu dox dem ci mu jël ngar gi jox ko ne ko sa mbir ak Modou djouf ci ne te sëñ Modou Diouf nekkul si jotaay sa mbir ak mbiram suñu ma Modou djouf ci ne te sarij bi ko ci jotaay bi kon moo juñu seen ànd motax tax mi nga xamne bëggul kën torox dafa bëgg ñëpp baax bi mu démé seeti ko fa dëkk fekk lim doon netali légui nit ku koy yëgal santané li Serigne Modou wax lam wax kook sax ëpp na li Serigne du wax waaye Serigne Modou fekk maamam la bëgg wax du mën a yegg ci wax ji daf ne su ngeen baxul jàppee kii muy seen morom dëkk bii ku baax du fi ne ku baax du fi juddu kenn du fi dund ñëpp ay xalab parce que jëmm dafa am ñoo xam ne mu ne moom sëñ Abdou Salaam mu ne koo xam ne sëñ Omar Ndaw ko woo ne ko wàccee naa la mu xëy dem liggéey sëñ Omar Ndaw fekkaat ko fa ne ko Cheikh Tidiane nee na wàccee na la mu xëy dem liggéey sëñ Omar Ndaw fekkaat ko fa ne ko Mawlaay Rasulillahi nee na wàccee na la mu xëy dem liggéey jàmm bu mel ni Cheikh Tidiane ne ko dugal ci tool daraam daraam du baax fekk noonu la ko yàlla ma neewoon mooy ku mu gis dafa bëgg dafa ku gis ku ñu war a jëriñoo day fexe nit ñi jëriñu ci moom moo tax bi mu fekkee waa dëkkam téye ko nuñ ko war a mu yee leen ci bañ xam moo di kan sama baay dañoo ànd njaajaan la de côté côté côté Sibesoor ganjaay ñu ànd foofu ñu dog benn daje mu ne tund bile waaw waaw yëpp na xam na ko fi ne woon ndax bi mu fii ñëw dara ne fi bi may ñëw njëkk maa yëg si ñett noonu laa daje te jàkk ne wu fi loolu moo di barke leer ki ne ci tur nit yàlla fu tëdd yàlla feeñal fa barke waxon na fi ne nak keur Farba yalla dina feñal mbir li tax mu ko fi feñal suñu Baye Amad Diouf fi la tëdd suñu mama Amad Diouf fi la tëdd Baye Amad Diouf mu suñu Abdou salam la dimbali nako ko ba beutam bi ci kiñi ñi ki ñëpp bëgg dem ku koo ko de ku teg sa beut ku sa beut tege ci mom waxuma la ne yow texe nga waye jëmmi texe ngay ne ñeel jaami ñu tëral ko fi kon xam nañ yaakaar ne suuf ci dana naat te fi te fii soreewut ak fële jegeen lool te fële la waxuma la fii waxuma la fale waaye la fale fële bi yëpp xaj nañ ci moo tax kontaan nañ lool dëgg nañ lool waaye Mawlaana Cheikh Ahmed Tidiane yi moom nañ ko jéem a xam nañ ko jéem a xam mooy sëriñ sëriñ ci nag li sëriñ Modou wax nii wallaahi lii moo di xikma lii moo di xikma li mu wax fii jot na pour ñu wax ko na pour ñu wax fi kan moo di cheikh jot na pour ñu xamle ko fi moo tax bi ma ne bëri dégg ko mu tudd loolu dama tiit parce que ñun ñëpp léegi nek nañ julit nak dara desatut légui ñun ñëpp ngi dem ci jakk jéeg a ñëw sawar nañ ci xam nga lu des ñu dundu jakk ñu ngi dem moy dañ ko dundu dundu moy bëgg fa nek bëgg fa sax dem ba nga xam buñ ne jot na sa xol bi di di tekki tekki ndég bég lolu moy dundu ji nañ ko nañ ko dundu jot na jaar fim wax nak lañ mëna jaar ko dundu ko fi mu foofu lañ mën a jaar ko dund ko nañ wuti kilifa ta te bañ a jommale suñ bopp dara nañ wuti kilifa amul màggat amul gune amul mag amul kenn ñëpp a mën a dox ñëpp la mën a dox mbiram yàlla la kenn moomu ko Abu Hurayratu bi mu tudd bi muy seet ci yonent moo ko mag ci at bi muy seet ci yonent moo ko mag ci at Seydou Abou Bakar bi ñuy tuddee Saddiq moo mag yonent waxu ma la mag yem ci waaye fa ko may jawaab ñooñale ay mag lañu woon jóg wëri yàlla bañ ko wëree daj nañ ko lim junj yit ne Mawlaay Abu Bakar Seydi Abu Hurayra moo wax ne afda ilayya rasulillahi sallallahu alayhi maa law abussu biha loolu xadis la ñëw na ci Fathul Baari ci Sahih Buxaari xadis bu wër boo xam ne si Abu Hurayra taa ko nettali ke ne yonentu xamal na ko xam-xam boo xam ne su ko tuddoon nit ñi nga xam ne ñoo gën a mokkal jàkk yee dagg bootam bi ta duñ ko daggee kanam de fii lañ koy daggee ndég foog ne lim tudd gën a bon te fekk lam tudd mooy aynu tawxid sëriñ bi bi muy jàng dégg naa ko mu ne xamaru tawxidi kal xaqu samsul maa lii le Sidi Aboubacar di wax ne moom la mooy li nga xam ne bu ko tuddoon mooy xamaru tawhid loolu nag mbóot la su yeggee ngeen gën cee waxtaane sëñ Mor mu leeral la leen lan mooy chamtul maarif foofu ak lan mooy xamaru tawhid foofu incha allah rabbi ah uma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu ilayhi unib asalaamaaleykum wa wa barakatuhu